ni pomade bo xamné boko boo ci sa awra mu dal di kuy deugereul di jël ko waaye nak du ko guddal ma la bile pomade moom itam dafa naturel lepp loo ci jël du la jural ben effet secondaire jokkool ak ñun yow mi ko ci 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boko amoule amul ñu dal di lay dello sa xaliss ñun rek ñoko Música fi ñuy dóoree nag du fenn fu dul eh, plateau Numbelaan ginnaaw bi ñu dalalee di Ameth Ndoye kàddu yu mu yëkkati ñu déglu ci ko ñëwaat. wax neex na neexul mais c'est la réalité ba pare ci porte bu ndaw bi la aw ci ginnaaw son excellence sunu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci porte derrière ba ca jardin ba lañ ko awale man bëgg naa ko xam bu fekkee loolu la France def tey li tax ma def parce que suñu président de la république on le veuille ou non lu tax ñu jaaree la ko fa ndax seeni wax yañ doon wax la en tant que opposant mais le monde nous écoutait hein surtout ci jamono boobu ngeen di wax mais FMI lim leen def bu leen jàpp ne Sénégal la ko def bon ci ci ci ci forme bi et tout Sénégal la ko def mais boo demee ba ci biir Pastef la koy def parce que ñun lañ doon wax FMI ak banque mondiale la mais manoo tam dëmm jël réew mi bëgg boo ñëwee man ma raayanteeg yow ñu avancé waat continuer di dem. ñoo ko déggandoo moom nekk nee na ginnaaw visite président Bassirou Diomaye foofu ca Paris euh, fi ñu ko awale nag du fenn fu ci porte bu ndaw bi en tant que suñu président de la République mu nekk koo xamante ne moo jiite toute. tous les sénégalais loolu du lu rafet waaye nag nit ki lu muy leble rek nay doon lu baax nee naa leen li yàqal jomaay du jóge ci kenn ku dul si ñi ko gën a jege ci ko gën a jege ndax tey France nee naa leen ñoom ñoo ñu coloniser bu ñu toogee naan France dafa war a mën a dégager xel nanguwu ko xel mën na ko xalaat mais waru koo nangu xel bu xalaatee ni France war na teggi loxoom ci ñun ñii. boo ko waxee nag ñu saaga la naan complexe complexe weesuwul ngay wax lu dul dëgg complexe weesuwul ngay wax li nga xamante ne mënta nekk te nga insiste ci xelu nit yi gëm loo leen ni lii mën na nekk te mu leer na ni loolu mënta nekk complexe mooy loolu. complexe bu dee wax dëgg xam dëgg te di ko wax moom mooy complexe kon complexe amul boo waxee ñu naan la complexe blanc yi ñun bi ñu amee complexe blanc du ci ñun ci ñi jiitu fii la suñu ay waajur ak waajur ñoo fi njëkkee complexe. France neutraliser Sénégal coloniser ko ku fi am français diplôme français boo munti am fi, c'est en français alors encore une fois boo voir France dégage li Abdou Nguer wax rek say diplôme français école France dégage bul école lu gat gàtt de donte ñu ngi lakk olof ci biir école yi donte ñu ngi lakk pël ci biir école yi wolof on écrit en français yow nga bëgg a gëmloo sénégalais ni que France fa war a jóge fii ñu jàngale lan France soxlawul am suñu nationalité soxlawul am suñu passeport mais ñun chaque jour am ku taxaw ambassade di lijjanti visa France wala di kërti kërti nu muy defee jaar ci yoonu suuf bi am ñi ma xam da leen jaral jaar ci géej gi dugg Espagne fële France kon xanaa loolu mooy complexe. ngeen bëgg gëm loo ni France dégage France doit quitter ici France quitter ici Orange jugé fi Auchan du fi Total jugé fi ak yeneen ak yeneen entreprise yoo xamante ne mënoo comprendre Du fi base militaire bi jugé fi léegi nag bëri wax bi ñu bëri wax nattu bi ñu am ci ba du mën wax moo ñu yóbbee ba tax suñu président fu mu mun ti dem bu ñooñu àndul ak seen xel ak seen sago dañ koy tuutal ndax ki mu àndal daf ko daf leen yekk ketame gëmloo Sénégal yi ñiy tekkiwuñu dara dem tey jël ki nga xamante ne tekkiwu fa dara taf ko ci boppam. gëmloo Sénégalais yi kii moo baax kii mooy nit ki jur fi coow ba am ay presse sénégal yi nga xamante dañ leen di jël dugal leen ci prison ci coowal nit kooku le président Diomaye na sant yàlla ba bañ ko jaaralee ci buntu bu ndaw. kon nga dugalee wuñu bopp bi ci fenêtre pousse tànk yi mu dem sante yalla bu mu jaaree ci porte bu ndaw on a du beaucoup de choses aux Français liñu waxal France dafa bëri te kiko waxal du kenn te kenn koku wax tay il paie pas les pour cachés parce que demoutone ça te gëm naa ni gàcce la moom mu dem di nuyu Macron di ànd ak Macron gàcce la gëm naa ne donte gàcce du ko rey ndax saa yu waxee teggi wax yi indi leneen mais gëm naa ne waxuma duñ ko mës gis ak Macron mais du doon heure bii ndax il a trop parlé France dégage foutre-nous la paix France dugg na fii France dugg na fii te seen français lañ leen di lakk sen doom ci école français yu upp doole gën a jàngale ci lañ leen di yóbbu sen doom entour français la ñuy lakk tu vois une africaine qui a ses enfants qui parle jamais wolof qui parle que que que la langue française tu vois am ñoom dañ koy bàkkoo sa sama doom bi déggul wolof français lay et puis toi tu veux que France dégage ils nous ont neutralisé loolu il y a longtemps te kii kenn mënu ci dara. dañ ñuy am lu ñu leen di apporter ñoom ñu am lu ñuy apporter te lu ñuy apporter moo gën a bëri li ñu leen di apporter donc nag kuy dóor moo mën kuy saaga nañu régler te ba du mën lépp wax lépp nga noppi régler gis nga tekk tekkaaral bi nga nekkee ba ñëpp di laaj lan moo la dafa kii tekk tekkaaral boobu la ñu soxla yàgg ci. bu dee jàmm la yàlla nga ci yàgg ndax saa yoo waxee wax loo warta wax saa yoo ko waxee wax lu ñuy xeebee tout homme d'état saa yoo waxee wax loo xamante dañ koy xeebee tout premier ministre kon sa nopp gii yal na yàgg donte bu dee jàmm la yàlla na yàgg parce que li nga li nga li nga wax tey moo yóbbee président Diomaye Faye ci yenn ñi moom musul wax mosul xep kenn musul yàqal kenn musul yekk kenn dara mais tey à cause de tes dires il paye les doy na waar dem ba France ki lay accueillir du président bi de seen sous-préfet sous-préfet c'est grave mais nag ah loolu lab bu rek loolu lañ lay fay boo bëree wax wax ba wax wax wax ba wax loo warta wax ñu def la luñ la warta def rek lool la ba tey ci seen scandale du jour de ce lundi 24 juin 2024 ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. sama gars yi maa ngi leen di nuyuwaat. ba tey yéen a ngi ci seen chronique bàyyi ci xel. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA, de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. léegi nag dafa am lu ma jaaxal ma di ko indi ci wàllu maanaam prix quoi comme ñoom ni ñu nee wàññi nañu denrée mbokk dama bëgg nga déglul ma Macky Sall li muy wax ni mi ngi doon ci atum deux mille vingt trois bi ñu génn ñu ngi ci deux mille vingt quatre pour le riz le kilogramme du riz brisé indien 100% passe de 350 francs CFA à 325 francs le kilogramme au détail. nga xam bu yagguto njaay ci le président Macky Sall waxee li ceeb bi ñuy wax na ñoom tey wàññi nañu ko ne quatre francs lañu koy jaaye te pourtant nee nañu dañu ko wàññi ngeen dégg daaw daaw walla daaw jéeg Macky Sall wàññi woon ko ba trois cent vingt cinq francs yow nga jaay ko quatre ba pare ne wàññi nga ko sénégalais yi mel ne ñoo xam ne dañu leen pikiir pikiiru nelawar rek ñuy nelaw seen yoon nekkul ci dara dégluwaat leen encore ci côté suukar bi le sucre cristallisé. Après échange avec les importateurs et la compagnie sucrée sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement. ne encore ñu avons jëlee nañu ko francs yóbbu ko ba 600 francs ci atum 2023 mille vingt bi encore le président Macky Sall. Pour le sucre, le kilogramme également passe de 600 francs à 575 francs le kilo, le kilogramme au détail, soit une baisse de. léegi déglu ngeen ko bu leer ci seen bopp. manam mune wagn nañu ko ba 575 cent fa quinze mbokk yi ku mu neex li wax demal nga gëstu ko mi ngi ci internet bi nga xol ban dat la fa nekk ci lu matul benn at ñu ne wàññi nañu ba 575 francs sucre kilo bi tey ñu ñëwaat encore ñoom ñu bëgg ñoo gëmloo ne wàññi nañ sucre bi ba 600 francs c'est-à-dire man ñii yan nit lañu yàpp ak fan lañ ñu teg ñun sénégalais yi pour ñoom ñun duñu xalaat dégluwaat leen encore ba tey ci wàllum diwlin bi pour wan leen ne leen amul dara lu ñuy wàññi dañuy nax nit ñi képp en ce qui concerne l'huile raffinée notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres il a été décidé d'apporter une baisse de c'est la wax encore ci diwlin bi waa léegi dégluwaat leen encore le président Macky Sall ci 2023 Pour l'huile de palme, le litre de l'huile de palme passe de 1200 francs à 1100 francs le litre au détail, soit une baisse également de 100 francs par litre l'huile de palme. kon gëratul may sonn di leen indil ay détails j'espère que yéen ñëpp xam ngeen li ma leen bëgg a wan te jàpp naa ne comprendre ngeen nañ ñi nga xam ne tey ñoom lañu ñu ba teg leen ci suñu kanam ci tappale ak caaxaan ak tatone làmbatu képp ci lañu nekk yow lu toll ne peuple lu lëmm nga taxaw bëgg leen a rouler ci fëriñ bi comme ça naan leen wàññi nañu dund bi ban dund ngeen wàññi lan ngeen ci wàññi anam lu doon jar 575 nga xey naan ñu def naa ko 600 francs muy kilo sucre lu doon jar 325 président Macky Sall wax ko mu leer ñepp dégg ci lu wàññi bi moom ni ko Badara Gadiaga waxe ci di bluff bluff c'est juste ben tour la rek tour la tour la li ci am Ken xamul lan la wàññi bi am tour la parce que li ñi wañi maintenant n'est intéressé ou la plupart de la population ñata ke ñu jënd 20 litres ñata ke ñu fi jënd euh, ki bi doon dowlin bu mag 5 litres lañuy jënd 7000 xawma 8000 xawma 9000 mom lañuy jënd mom lañuy jëfëndiko ga dem wañi bu nga xamantene duñ ko soxla ci ep no parfumé bi kan mo ko lekati bëretul sénégalais moy lolu te lu neex kenn bañu ko man je juge pas les sénégalais parce que lu neex kenn bañu ko kon nak wañi bi am dégg lañ ci am am dégg képp lañ ci am waaw ba tay ci sen scandale du jour ki di Jimbori kaddu mu yëkëti ginaaw e, polémique bi sañ ci première ministre première dame bi jura moom kaddu yi la ci indi. boppam tol ni ki ka solal ngeen waron xol nooxu wax dëgg yàlla non non robe bi gisee ma ko nenn parce que kooku mooy saboté première dame première dame saboté wul boppam parce que ba mu demee France foog na ni moo fa toj fu mu toll ni foog na ni moo fa toj bu ko leeroon du fa toj du ko sol wax dëgg yàlla parce que Bassirou Diomaye Faye tamit bi muy doog a commencé nii la doon def ay yére yoo xam ne mooy lool mais ñoom dañuy jàng foog ñu may leen ñu mokkal waxal rek foog ñu may leen ñu mokkal mais bu doon maay moom damay jël garaam bu bëgg sër samay musóor yu baax sol ko moo gën yii nii. première dame moo toj France mais sénégalais pourquoi ñu bëgg attardé wu ci ci ci habillement mais tey je vois des gens qui comparent première dame ak Marème Faye sàll Marème Faye Sall ngeen wax seen bind bi sa bokkut mbind bi leen yàlla bindee bokkut kii taay fin la. Marème fay am jongoma la bokkuñu li ci Marème nekkul ci kii istilu boppam la indi ki ko solal deful dara moom mi ko sol deful dara ñun ñi ñoo am temps di détail di xool robb bi yegg nag wala yeggut c'est sa façon de s'habiller nañ ko ko nangul où est le mal lan mooy problème bi tubaab bi du euh, ki taaymaam ta kii euh, nu mu ay waay robb yi niñ niñ leen di tudde trois quarts lañ ñoo ñoo ko fi dakk sol robb yooyu nga xamante ne romb na un bi un bi yëggul om bi ci diggante om bi ak ak ak ak ak kii bi lay nekk tànk yi yooyu la ñuy sañse teg seen i talon waaye yéen première dame lu mu sañse lu ñun ñun am na lu ñu doy li ñu war a waxtaane mais pas na lii solul léegi gis naa ñu koy collage ak Marème Faye sal Marème Faye Sall du kii te du mës a doon kii Marème Faye Sall quand boo ko gisee tu sens nettement que kii si une femme purement africaine sentir une sénégalaise kii nag ak accoutrement bii la indi niñ ko ko nangul lii la lii la bëgg a sañse lii la si uwe la mal yéen jamaay nu muy soloo Macky Sall mosta ta soloo noonu veste yi jamaay di sol Macky mos ko sol bouton yi ñëw bu fii des fois am lu balaa lu feeñ fii xaw ma souverainement bi la xaw ma dafa am lu muy sol ci biir mom la indi legui lan moy problème bi jabaram li la indi robu bi gàttul guddul ba paré nak ha ah, sañse nak amna ño xamni xam ne lu mu sañ ñu sañse mu jàpp leen am ñom ni leen non li ci bir mëno gis valeur bi kon détails yooyu buñ ci attardé wu wax nañ kaaw jamaay ba fu mu nekk di féete na bor nañu yàbbi jàmbur bii lii la bëgg a sañse nañ ko bàyyi mu sañsi lii dàllam mi gis naa ñu koy jël di ko jume saag bi ñu koy jume si lan mooy problème bi problème bi moom elle se sent elle se sent à l'aise elle se bien léegi ñun lan la ñuy déranger ñun nekkuñu première dame demuñu demaatuñu du suñu yoon suñu yoon new ci nañ bàyyi émotion sañ sa dara newu ci waaw bàyyi leen di ko comparer ak Marème Faye Sall bokkuñu te duñu mës a bokk sañse yi bokkul quand même dañu waxtaan é wax dëgg Marème bu mësaane ah, né, sañse ba dox njàpp ba toog da ci yow sa bopp tu sens quelque chose kii nag lii la indi nañ ko ko nangul tamit tá ba tey ci seen scandale du jour Azoura fala

Wally Seck musu musuñu ko gis mu ñun musuñu gis Wally Seck te kaamil alxuraan di jàng musuñu gis Wally Seck jiite jabaram musuñu gis Wally Seck jiite keneen man ma gis Ousmane Sonko jiite ay jabaram jiite pegam jiite ay doomam jiite ma man man gis naa Ousmane Sonko muy waaye lu nekk man man amul nit man nit mënuma wax nit man ma ay nit yu may topp ci ma aadama man topp ma Wally bëgg man topp ma Wally topp ma ko lijjantuma Wally li muy def na yor ay milliards lijjantuma ko mais ñun kenn ñu tànnal ñun suñu ambassadeur rek ñun ay ambassadeur ne ñëw si yooyu newuñ si yooyu ñu doon defar si yooyu ñun ñun ñun lu ñuy lekk ñun ñun lu ñuy lekk mu si gémmiñu gaynde soo ko joxuñu ko ñomaa joxuñu ko ah, Sénégal de yàlla na am fukki waali sekk Sénégal yàlla na am fukki waali sekk waaye Sénégal yàlla nañu yàlla musal ci ci ci ñaari azura waaw yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla musal ci ñaari nit yu mel ni kii waaye yàlla nañu yàlla mooy fukki waali balaa ko sekk faramaareen bi koo xam ne foo fekk social mu def ko te yéen nag il faut ngeen di comprendre une chose yéen moom moo leen dëkk bi yéen ak ñi fal jomaay ñi falu jën ak yéen képp ci nguurum jomaay c'est votre président c'est notre président mënoo leen ci saala yaay ndeer mënoo leen ci naada Wally Seck ànd ak Amadou Ba mais ci un sénégalais am na si droit Abdou Guité Seck woy na Sonko où est le problème Dieyna Baldé woy na Sonko lan mooy problème bi ah ñooñu am nañ droit ànd ak Sonko waaye kii amul droit ànd ak Amadou Ba mais Amadou Ba ku mu gënul ci réew mi gënoo ko Amadou Ba ku mu fi gënul gënoo ko ci côté yépp nag ci juddu ci côté liggéey ci côté nite ci jaamu yàlla ci côté yépp kon nag Wally sekk yàlla nañu am fukk ñu mel ni moom ñi nga xamante ne saa ñu xëyee waa lay joxe dépense seen kër nguur yëgul kenn yëgul créer emploi bàyyi leen foo bi nag bàyyi caaxaan gi yàlla nañu am fukki Wally ko Seck waaye yàlla nañu yàlla musal si ñaari ñu mel ni kii yàlla lañ say ñaan ñaan naa ko ko yàlla nañu yàlla muy fukki waali bàllaagoo si ci réew mi ñu doxal yàlla musal ñi su ñaari ñu mel ni yow yow rek doy nañu këpp ak nattu ndax kenn xamul ban poste nga occupé tekki woo dara démb tey ñee nee nañ dangaa dof ñee danga reew dangaa réew réewoo dofoo dara dalu la xamadi nga nekki ak ñàkk xam àdduna rakkaaju nga nekk dara dalu la tus daru la ndax Sénégal bu fekkee ku rëy nit ñu ne dafa feebar ku wax wax yu ëpp ñu ne wérul dafa reew wérul ndeysaan psychologique yu kenn nit def na kasu cinquante ans génn rek la ne muut di def yëfu nit yow defoo fa at defoo fa ñaari at defoo fa ñetti at kon bu leen ñu fontoo loolu bu la neexee yekk suñu président bi Keteme bu leen neexee yekk Pape Alé Niang donte je défends pas Pape Alé Niang parce que yéen bokk seen kër yéen a yem képp yéen bokk seen kër yéen yéen a bokk ki ngeen ngeen bëgg waaye man waali bi ngeen bëgg a jël rek di ko tong-tongi te waali gën leen gën leen juddu gën leen tekki ci réew mi gën leen doon dara ci réew mi gën leen doon qu'est-ce que ça veut ci réew mi loolu duñ ko seetaan ndax waali ballaagoo nag ku sañoon am kenn ku mel ni waali ci këram baa ci famille mais koo xam tekkiwul dara di mbëg tey wax ju ñaaw sos suy wax jamm sa nga yakani day dem xuloo ji xex wali waali dafa dal bay fàll kon wali neena len ba tay saa yu un deux trois dama len di wax kaddu gi moy tuddeen ku yaayam ligi ak ligeyal liggéeyal yaayam kii pàppam dafa geureum yaayam aduna weurngal kep dégg ko te jigen bu sañoon ñu waya waxal la lolu kon nak <laughs> lumu wara am <laughs> bo len waron am yeen ben chèque moom double triple bi la yam te soxlawul seen dërëm ndax ba muy am bu muy dawal ci oto yi yéen oto ay oto fonctionnaire ñi ngeen àndal ñooñu lañ doon dawal bu muy am ci immeuble yi yéen dañ leen may ay immeuble ñi ngeen àndal boobu ñi ngeen yaakaar dañ leen may immeuble ñee sax ci te ay ay ay hectare naan ñoo ko moom président Bassirou Diomaye fay ci déclaration d'honneur am ñu ne këram ku mu dëkk nii Mermoz pare wu ko fay Wally Ballago Seck fu mu dëkk moo ko moom il faut comparer ce qui est comparable Wally <laughs> artiste la liggéeyam lay def te nag ci mim réew mii ku bëgg a doxal da dangay dangay ngay da ngay jege Wally Ballago Seck waaye ñi nga xam ne tekkiwuñu dara bu ñuy wax nit yi nit ñi duñ leen déglu tamit. li leen mooy te dafa bëri yéen da ngeen falu wut mer ngeen falu mer amoo leen xaalis ngeen mer léegi am ngeen ngeen mer yéen a ngi jàpp ci seeg yi ngeen mer mën da gis nga yàlla des fois nit des fois foog nga kontaan mais yow yàlla lu mu la munti defal doo sant lii ñàkk sant yàlla la quand même yow yaa ngi doon dakkante boo waxee ñu jàppale dugal la ci kaso bi lacrymogène fee manifestation fi loolu yëpp yàlla def yàlla def jeex na léegi fu la neex dem te tooñ nga ba naan armée bi dañuy dañ leen di changé yow nga xam ne tekki woo dara occupé woo benn poste soli ak veste di di di di ami ay ay chèque chèque yi mérité nga ko ndax yaa doon téye drapeau bi te dafa diis kon nag Wally Ballago Seck euh, noonu la coowoo ko jikk ba ci seen scandale du jour ñu déglu ju vidéo bi ñëwaat. jël may wax dafa samay wax. dafa changé samay wax defal ma montage vidéo wallaahi billaahi tallaahi sama vidéo da koo dagg ak yàlla naa suuf sama njaboot daf ko dagg defal ma ay montage kon nag maa ngi jéggalu groupe bu gëm sa bopp yépp maa ngi leen di jéggalu ci kàddu yi ma wax maa ngi jéggalu buggaan ci kàddu yi ma wax ndax dafa am sama waajur yu jigéen rakkam bu mu bokkal ndeeg bàyyi mu dëkk Touba bok sama yaay bokk ndey ak baay wax ma ci bugan bo xamni lu daw yaram la manako li defumako dañ ma dag te dina bu guddi munta nelo sama rakk yaay bu bët set wecc ndax am lu ko nakari manako tante li monta asla la te du toog la wuro a ah, waaw senegal moom dafa neex sagam sagam suñu sunyu suñu suñu suñu suñu ku ku ku ku ñu ku ku ku nekk responsable gouvernement bi sagam googu moo sañ bu waxee lii léegi léegi léegi léegi weddi ko ba mu set wécc ne waxul lii la léegi lu waaye neex wax nit ba pare taxaw ne dama juumak ak dañ maa montage ak sagam nit wax na fi dafa rey ay nit ci cocktail molotov financé na si ay millions déggaat déggatuñ ci dara bàyyi na mu set te Sénégal mbuum bu wax ñetti fan la mu jàll ci leneen coow li ñetti fan la léegi nag. mer bi sagam li nga waxal Bougane gey dan yëpp senegal yëpp tek ci sen beu deg nga na yow euh, Petit Gallo euh, dalaa dañ dañ la monté dañ la li budé yeen da nga ñoo jappé ñu dul adina ah, lèr man de cadeau yu mu yëkëti man dama part personnel ku ko won woon jëmale ko ci sama mbokk ma porter la plainte ndax c'est extrêmement grave dafa doy war doomu aadama jullit kilifa bu dey ni maire bi toog këram ñu jël la interview nga naan di waray jabaram di waray gorom di wa def lii di wa def lii jaar ci tuuram direct tuumaal ko ba pare nga toogaat jamono neex dañoo montage dañoo supprimer sa way wax kenn supprimer wul say wax li nga wax yow yaa ko wax te lii nag bugaan ngay bu ci jugut ñi jege ca bugaan ngay dalee nañ ci jug parce que trop c'est trop trop c'est trop bu fekkee dañ laa fay xaalis bañ la fay nga wax li nga wax na jàppal du res ndax góor du tooñ te boo góor nit nit boo tooñee ran ba déwén mu jig la dañ la ko jiñ kàddu yi nga wax yëkkati na yëkkati jëmale ko ci papay jàmbur te te te jabaram bàyyee ko njaboot bàyyee ñetti bant ñooñu tey nekk ci intermet di dégg ñu ne leen seen pap moo rey seen yaay senegal dafa doy waar dafa metti nga toog sa saal ruusoo sa njaboot ruusoo sa bopp xooloo sa âge bi nga am ruusoo yàlla mi la tiim nga naan di waree jabaram fu leer laa ko teg diw jaar ci tuuram te diw boobu yor njaboot bëgg dagan baatu askan bi diwul dara ci réew mi créer emploi di fay tekki dara ci réew mi yow tekki wo dara du dul yak der ndax kilifa bu deyni ni yow bu toge sala wax yak der yak do ko xamantene tay bu la bu bu ko bu la bu mënul nek sa do mën nam nek sa rak mba sa morom nga taxaw sa sal yu talal la micro ngay ratatati jékki-jékki nan ken ken montage la man ma setan li nga wax mais man j'étais tellement man dama li ma yëg maa ngi mel ni ku bokk ak Bougane Gueye Dany parce que kaddu gu ñaaw moo baaxul te ci réew mi dañ koo jël lekk def ko mburu kafe saa ñu xëyee fa ñu ndekkee ko pour lan nañ la porte plainte yoon def liggéey bu dee dañ lay na rapp ci kas bu dee maay Bougane duma la baal dañ lay tëj ba caabi bi dam parce que lii c'est trop ki dem dafa bàyyi njaboot Bougane dafa am ak jabaram ay doom ay fasu naaru góor nekk ci kër gi nekk ci internet bi ñu ne leen sama papa moo def lii sa yaay moo rey sa yaay moo def lii may wax ay fekk nekk ci commentaire naan waa moom di kat jabar ji lu mu noppiwaale woon kenn xamul lan la suñu dëgër fit ñun yàlla lu mu ñu dencal bis bu ko këppee suñu kaw du baax ñun nit yor jabaram yor jabaram yor jabaram ba yàlla jëlaat ko yàlla miy reyaate yàlla jël ko yow nga toog nit wax ay waxam munoo cee maandu ah ah loo ciy wax waaw moom de lu mu noppi woon yàlla rek a ko xam kii lu mu ko mën traité lu mu souffrance kii kat am na fee doom am lu ci sa yoon sénégalais allahira bu ñu tardé rek gis nga tubaab yi nga xamante ne sanguwuñu set julliwuñu nangu ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wallahi sen rombu ni sen rombu dem al aljanna mo gëna a yomb ñun ñi nga xamante nenañ dañuy sangu set dañuy wor dañuy saraxé dañuy jaamu yalla tax daru du ci dëgg baadoo la mag bu tollu ñak fayda nek wax say wax ba paré toga naan kila kila interviewé mo monté say vidéo te aduna yépp teg ci seen bëtt nga wax ba naan <laughs> ça m'énerve au final Li li du dëgg <laughs> eh, barke rasulillahi eh, man duma ne yalla nañu yalla yërëm li ñu nekk nañ ko yalla topé. ndax leer yenn yi du jamm. ku bëggul jamm da nga woni bëggo jamm. Yalla fa mu won ñu fal yàlla des fois fa ñu mu won ñu boppam mhm. ndax yalla bii rey rey nit ba paré. nga naan diwu ko rey tekki tekki tekki yaayam si الله أكبر Bienvenue dans votre scandale du jour de ce mardi 25 juin 2024. Affiche VIP People, la chaîne des grands événements. La scène qui vous informe juste est vrai. Fin koy dooree nag du fenn fudul ay kàddu yi nga eh, invité Maimoun Ndour bi kàddu yi la yëkkati qui bu ko ci émission boobu la nga xamante ne l'invité de Maimoun Ndour foofu ci 7TV ñu déglu ko Sénégalais yi les propos du premier ministre. Euh, le Sénégal compte 12 ou 13 premiers ministres. Mhm. Euh, et kilifa ñu non non non euh, doguma mais boo gisee Habib ah, Habib Lamine Loum Moussa Fagnas, Agibou Ndiaye. Senghor alors sous Macky Sall Abdou Aminata Touré. Euh, feu Boun Abdallah Dionne yalla nako yalla yàlla mhm. Amadou Ba. Ah, c'est-à-dire mosuma gis dans l'histoire politique du pays. ay kilifa un chef du gouvernement taxaw di traiter des citoyens de délinquants. <laughs> mais wax naa ko wax ko wax ko dans mon dernier article. xam nga boo xam nga <laughs> jamais vu boo nekkee moo waruñu banaliser ces propos là. non xam nga bo nekkee ENA li lay njëkk a jàngal l' le prestige et il n'y a pas de précision à distance. Et malheureusement, le Premier ministre que nous avons actuel est incapable de se hisser à la grandeur de sa fonction. ses fonctions. C'est pourquoi on dit l'État anoblit. Mais l'État ne va pas l'anoblir. Comment un Premier ministre peut accuser nommément le président du Conseil constitutionnel de corruption Comment le Premier peut dire que oui, il y a des gendarmes qui sont morts, on les a jetés Comment il, peut, il, a balancé le ministre de la Justice Le ministre de la Justice, euh, oui, c'est un homme rigoureux, ah euh, voilà, euh, euh, euh ininfluençable. Mon ministre de la Justice, il a une vidéo, il a qui boy pastef là, il a fait Il fait tomber le mythe. Il fait tomber le mythe bi ma mujjee fii le 2 avril lu la waxoon assise c'est une perte de temps. man dama yaakaar ne sax moo ko tey. mais ça ça mais ça. mais dama yaakaar ne sax moo ko tey non ko non non. mais si moo ko tey. assise yi li ma la wax xam nga assise dama ñëw fii ne la assise c'est une perte de temps assise c'est une perte de temps mais Ousmane Sonko wane na ko. bu dee le premier mi bu le ministre de la justice de l'appel. et ça veut dire que donc. pour un militant de Pastef qui a insulté un magistrat. mais ce qui est ce qui est plus grave ça veut dire que donc de le de la justice donc ça veut dire que la justice écrit sur sous la dictée de l'exécutif et donc ça veut dire que donc ñoom 5 ak cinq ans une guerre aussi longtemps que le premier ministre et le ministre de la justice en fonction mais l'une ils vont de la justice parce que l'une ñu enquête l'une audit l'une poursuite les gens vont dire que c'est le premier ministre qui décide en en, bon français comme moi je suis un grand disciple de Senghor en bon français le lendemain noir la la la lettre de cachet ça dit que le roi avait le pouvoir, s'il voulait mettre quelqu'un en prison, de, juste de faire une lettre de cachet, et puis on te met autrement en prison. Et ça nous renvoie à François Ier. Quand François Ier dit « tel est mon bon plaisir », ça a devenu la loi. Aujourd'hui, le bon plaisir de M. Ousmane Sonko semble être devenu la loi. De toute façon, le ministre de la, Justice, qui a été un magistrat émérite, Ousmane Sonko l'a coulé. Parce que en public, ah il ne peut plus avoir aucune crédibilité. Il ne peut plus avoir aucune crédibilité. Parce que l'homme fut menti de même dans l'intérêt de Pasteur, dans l'intérêt du régime, le ministre de la doit démissionner. Parce qu'après l'OFIDEF, c'est frappé de ce qu'on appelle les mécanismes de soupçon. Le soupçon est établi. Demain, le rapport de Et la justice, comme on dit souvent, c'est le seul service de l'État qui porte le nom du C'est pour cela que le président de la République ressent le besoin le jour de la tabaski de dire qu'on ne fait de justice, mon Ah bon Du politique, oui. du politique, du dara le président est sorti pour rassurer. Bon, comme c'est comme c'est comme c'est le premier roi d'Angleterre. Eh, problème yaa ngay démarré Mon daal day lim day lim euh, premier ministre yi fi jaar nee na kilifa ñi mat kilifa quand léegi kan moo matul kilifa mbaa du ba du mon lépp. xam nga man damay ban c'est man yenn yi bu ñu koy wax ba du mën lépp dama koy bëgg a défendre mais ba du mën lépp kenn mënu koo ndax ba du mën lépp wax na lépp nee na mën na lépp ba pare digg na lépp lu waay war a mën a digge rek moom digg na ko lu waay waroon a wax wax na ko politicien fii ba dix ans loo war a mën a digge rek moom digge na ko ba pare moo tax opposant day jafe de fi mu ne nii parce que loo wax rek répétition la ci ci ci xelu boy ba da mën lepp wax na lépp wax na lépp léegi nag premier ministre bo xamantene ku juk ngagne la ku juk wax ci yow ku juk yek la ketame ah man zé man koy dóor a gis ci mbim réew Amadou Ba lu ko way waay bañ bañ bañ bañ bañ bañ ah ci élection yi lañu déggé mbirum sàcc de ay jégné na ko tegal mu tégg ak bun Abdullah Dione yal na ko yàlla yërëm xare ko aljanna Macky Sall na fi premier ministre Idrissa Seck waxi noppi waaye nag ki mujj Sidiki Kaba ñooñu yëpp waaye premier ministre boo xamante ne respecté wuñ la sa suñu tintong la ci tiktok bi loolu neexul ci xol nañu waxtaan wax dëgg loolu même boo àndul mën mais sa xol du neex parce que boo boo quand tu le premier ministre di Sénégal je suis concerné yow mi may seetaan tu es concerné donc ça fait mal au ñun waroon na moom waroon na bokk ci ñi ñu lim nii mais bokk boolewuñ ko ci li tax boolewuñ ko ci nag du kenn ku dul ba du mën lépp ndax ba du mën lépp dafa wax a wax lu ma mën ak lu ma mënul lu ma attan lu ma attanul taxaw palaasu yàlla ne leen man la man la man la man la man la yàlla ne ko comprendre sa li xew après ngay comprendre ndax boo ko ba Bassirou jomay fay bi mu taxawé eh, keur Massar nan yaay suñu bakkan yow yaay suñu candidat kudul yow du kay bobu xamut bobu yalla ni ko yaagi yak sa énergie excellence mom yow ya koy deg <laughs> Yalla mën na nak barki rasulillah yalla nan ko yow yuuxul lek yow yow deel yakal sa énergie rek nan yaay suñu candidat kudul yow du kenn yaay ah, suñu plan A wa suñu plan Z fekk yoo plan X yow la yàlla de ay mbiram ndeysaan ay yàlla baax na premier ministre bii ba du mën lépp ah yàlla baax na ba tey ci seen scandale du jour ginnaaw li xew foofu ca Medina Gounass sax ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. parce que tey xam ngeen bés bu tiis la. ci mbir mi gendarmerie nga fa woon te xam nañ dëkk bi nu mel kon boobu mënoon nañ jël ay matuwaay yoo xam ne ñoo am ay gendarme yu doy ñu ubbi bunt bi yéen presse bi yéen seen bopp relayé ngeen loolu wax ngeen wax ngeen li ngeen ci war waaye coow ji dafa bëri moo tax ñu nañ toog ñu wax ñu ñuy dëgg fu mu féete te yàlla dong moo tax ñuy wax parce que ñun loolu lañu jàngal ci loolu la ñu yar wax dañuy dëgg ku nekk nga dëgg nga xam ku nangu nag si bisimilah ku nangul aussi waaye dëgg bi dañ la ko wax parce que dëgg yàlla moo ko moom ci yàlla lay dellu Thierno mu ñëw ñu xaar lu ma mën a tuddee lu tubaab bi naan guet-apens si guet-apens parce que dañuy xaar bi Thierno bi oto yi dem ba nga xam ne soo ni diggante ñaari kii ñu tëj fii ñu commencé sànni ay xeer yàlla moo ci def sutura waaye xam ngeen Thierno tey jii at fi mu tey jii am ay quatre-vingt-neuf ans quatre-vingt-dix ans muy mag yërëmoo ko amoon loo ko yéene muy xalifa diine boo xam ne bis bu ne moom du nelaw guddi du nelaw bëccëg mu ngi fexe yàlla xam ne yàlla moo tax may wax adduna bi yëpp bëggul kenn kenn kenn dafa bëggul yëpp mucc ci ci safara ku mel noonu nga xam ne mu ngi lay liggéeyal nga yëg ko nga yëg ko nga ko yëg fu mu ngi lay ñaanal amoo loo ko yéene loolu faagagal jël xeer bi ma ko waxee yàllaa ji def su yàllaa nagul seen pexe parce que bu doo loolu tey jii bu ñu fi toogee leen lañu wax waaye duñ wala mbaa ñu am sax jote fu toog fi di wax ak yéen alhamdulilah rabbil mi oto bi dal ci vitre bi vitre bi nag c'est blindé loolu moom mooy chance coow ji bëy na lool seen bokk seen naataango yi am na si ñu bari ñoo xam ne ñoom lu nekk lu nekk waxee nañ parce que lu gën a baax ci mbir nga ne journaliste nga da ngay tas xibaar na nga dem nga jëlee xibaar ba fii foofa nga jël lu baax waaye am na ñoo xam ne te ji dañuy uyoo loolu fekk duñu moom ñu seen boppam duñu moom ñu yàqal ñi nga xam ne loolu mooy seen liggéey ñooñu nag ñoo tasaare wax wax waxee ko neneen xam nañ ne ñu ko def du ñëpp xam nañ dafa am ay mbooloo mbooloo bu ndaw boo xam ne ci biir ñoom ñoo indi ñoo indi coow ci parce que ñun duñ ko mën a waxee question jalousie la xëy na Thierno am na xëy na ampleur boo xam ne fi mu ne mu ngi déranger ñu bëri ñun foofu lañ ko fi waaye comme suñuy xalif dafa ne nangeen ngeen dal ngeen di jàmm man jàmm laa oote moo tax ñu déglu ci ñëpp ñu ne ci jàmm ñu oote ci jàmm parce que yéen yéen yéen a yóbbu suñu kàddu fu ne. pour mbooloo yi parce que ñu bari oo nañu am na fu fu ne fu waaye fu ne pour dalal nit ñi ñoo xam ne ñu ngi ci jàmm Thierno mu ngi ci jàmm li ñu war a def nag ñun bu soobee yàlla mbooloo bi toog fii ci ndigalu xarit dañuy topp mbir mi bu jeex takk nguur gi day jeex ay responsabilité ñi nga xam ne daf nañ ko ñu jéem a seet waaye li ci gën a ñaaw suñu xew mooy délégation bi ñu ànd ak ministre de l'intérieur ñu rax ci koo xam ne ñu ñëpp xam nañu ne yée wóor nañu ne moom àndul ak yàlla mu ñëw foofu lan la fa doon wut mooy capitaine Touré ñun ñëpp xam loolu nag ñaanu suñu xel loolu nag bëgg nañu nguur gi leeral ñu ko dëgg la ministère de l'intérieur la liggéey dëgg la directeur général ASP waaye ministre de l'intérieur bu ñëwee ànd ak DSP

ngeen xam ne daal mbir mi nii la demee bu leen kenn wax leneen lu dul xalif bi jóge na këram euh, euh, euh, bërëb jullikaay bi di ñibbi këram ñu jël fer dóor ci vitre bi mënuñ ko dóor ci ginnaaw oto bi mbaa dóor mais fii mu toog ci kanam fi mu toog foofu la ñuy dóor xeer bi kon boog te man su ma xeet ñaaw na ci kooku soo man la engage dama ne bi vitre blindé nan la koy xeer bu la tojee nañu seet lan moo lan moo toj ñu nguur gi dafay enquête ba xam ñu situé responsable ñu xam bitig yu ñu toj yàq-yàq yu ñu def gendarmerie mënul nekk foofu ñuy jël ay xeer di ko tëmbal ci biir kër Thierno di gaañ njabootam loolu yëpp lu jar a wax la dégg nga ñun jàmm lañu oote mais dañu bëgg nag nguur gi mu doxal mu def enquête am dañu ne dañu bëgg. ñu ne am nañ pétrole dañu bëgg Sénégal émergent mais mënuñu émergent fekk newu ci jàmm c'est pas possible émergence da mu àndal bu dee sa dëkk fi nga dëkk fi nga sànc ba sa biir kër mënatoo fa am jàmm mënatoo fa toog fu jëm ku nekk nga gàddu sa bagage nga seet foo foo toog léegi nag moo tax ñu oo leen ngeen baal ngeen baal ma du question damay waxee xol bu fi sol damay yëkkati mais damay doo bëgg rek dëgg bi mu feeñ ñëpp xam lu mu demee li si des bu demee ba xam ne am na yeneen développement bu soobee yàlla euh, comme comité baa ngi fi ñoom ñoo ootee tey ci ndigalu xalif bi nag li ñuy def ci ndigalu xalif bi lañ koy def juguñu rek di ko def. doy na waar bon quoi que quoi qu'il se passe euh, gis nga mbirum xeet. wala mbirum mbirum euh, diw mo fi jiite diw mo fi njëkk dafa wara a jeex dans ce pays medina c'est euh, sen principal problème ça a toujours été comme ça d'abord il y a deux communautés il y a deux communautés communauté yo xamantene duñu du Manam, sen maanaam ñagas bi dafa yagg dafa yàgg parce que ñun dañ dan dégg suñu ay mam di netali nettali Amadou yal nako yalla yàlla yërëm ko aljanna mi gañu ya un an de cela ndanan la woon jambar la woon waye bokkon na ci ki tax mu maîtriser mbir yi ba lu melni ñu gij ko dégg ci ay ati at mais ñaari communauté yi danaka musuñu and musuñu jubo ñee dañoo am seen jàkk ñee am seen jàkk ñee am seen xalif général ñee am seen xalif général ci benn ci am benn dëkk mu ngi mel ni tey tuuba am ñaari ñaari ñaari euh, kilifa diine ñaari xalif général sëñ Muntaxa ak keneen mënta ne mënta ne ñoom ñëpp ay pël lañ tukulóor bi ak fëlkunda ñi xam ñi xam dëgg-dëgg cosaanu Kolda xam nañ luy Fulkunda mooy pël yooyu moom mooy ñun am ay tukkuleer ñi ngi naan tukkuleer maanaam suñu laq yi sa bokkut loolu dafa yàgg Medina Gunaas mais dafa war a mën a jeex yéen yëpp yàlla ngeen di jaamu yéen yëpp alxuraan bi ngeen di jàng yéen yëpp lan ngeen di tere muy fen ànd ci dëgg lan ngeen di tere muy la co la cohabitation boo xamante ne jàmm da ciy am léegi lan mooy problème bi ana lan lan la jamante paaka di wër foofu ana lan la xeex sànnante xeer ñii julli nañ ñii julli nañ où est problème ak lu mënti xew man je cherche pas à savoir ñu ñëpp ay jullit lañ lii dafa war a mën a jeex ma Médina Gounass te problème la boo xamante ne foo nga dem foofu def des en des maanaam des enquêtes pour nga xam vraiment lan moo waral source parce que problème bi du problème bu yàgg bu bu bu récent c'est une longue lu yàgg la ci communauté boobu noonu nekk ak Médina Gounass ñee dañu am seen xalif ñee am seen xalif te ñoom ñëpp ab pël la ñuy làq duñu takke duñu laale ñoom ñëpp dañuy jaamu yàlla léegi lan mooy problème bi gën kenn ngeen di jaamu muy yàlla suñu borom kenn ngeen gëm mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu munti xew war ngeen mën a ànd ni ci jàmm donte àndoo leen bëgg-bëgg àndoo leen euh, euh, seeni principe bokkut mais loolu noonu faw nga dem ba foofu gestu bu baax a baax xam ni problème bi du problème bu bees lu yàgg la problème gunaas bi maanaam li éclaté nii ça fait des années et des années yàgg na torop foofu mais ki ki ki ki dellu sëriñ bi dellu sëñ Cerno Amadou mi gaañu il y a un tey doomam nekk foofu jàmbaar la woon ndaanaan la woon dafa maîtriser woon mbir yi tombé aussi ñu amone ben président bo xamantene cohésion sociale da ko yitteloon kon nak li bu amee dafa ñaaw c'est pas du tout joli ñepp ay xalpulaar la ñee buñu laké dañuy dégg donte bokkut ñee buñu laké dañuy dégg donte bokkut bokku yonent bi bokku yalla suñu borom kon amna lo xamantene rafetul kay problème bu yag la nag les vrais journalistes je dis bien les journalistes d'investigation bo leen démo gas vous verrez que histoire bu yàgg vous verrez les vraies raisons de cette situation ka du fenn fudul ki nga xamante ne moom la dame de fer de président Macky Sall muy Diégui Diop kàddu yu mu yëkkati ci li nga xamante ne moom ndaje bi Ousmane Sonko woote woon foofu ca Grand Théâtre ñu de ji ko ñëwaat. ba pare taxaw ñi la xaar pour nga wax ci DPG bi kañ ngay dem pour di wax nga dem devant des millions de jeunes wala des milliers de jeunes pour ne pas exagérer au niveau du Grand Théâtre nga taxaw yor ben fay naan ministre de la justice li nga ma envoyé par mail demal nga dem régler ko bour ci wax dara. whatsapp whatsapp. t'imagines whatsapp sax gëna gën taxi nous sommes dans un état nous sommes dans un waye lii yëpp lu muy jur moy bo rampewul doo mën a xam lo jangul mëno ko téri waye pour le moment jox nañ leen dëkk bi nañ ko doxal té baye loolu tamit il faut relativiser ndax yéen. ci suis d'accord yu bëri ñu bëri ci yéen ba Macky Fallo nekk woon ci dara. waye jox nañ leen mais ce que je veux daal c'est qu'on arrête la victimisation et qu'on prenne les responsabilités gis nga aduna bo boo demee ba ni mën naa ñu tek say loxo da ngay mëna prouver boo mënul nga ni mënuma waye lu xew tam nga assumer do mëna taxaw rek ni chaque jour ñi fi nekkoon ñom ñoo tax ñi fi nekkoon ñoom il faut qu'on arrête d'humilier les honnêtes sénégalais qui sont là tels que le général Kandé entre autres nañu waxante dëgg dëkk bi tool na foo xamante les gens ont envie d'avoir des preuves les gens ont envie que gis président Macky Sall lam ful la fait dagamou wane muy Sénégal muy Afrique muy à l'étranger qui ki ka remplacer muy président Diomaye di ko jéem nañ ko bàyyi mu doxal deuk bi c'est lui notre président. jàpp na mu ngi doxal. pour le moment dama ko gis rek mi ngi dem ndax man gisuma Diomaye wax dara xam tu sais la politique c'est quoi c'est la vision et la gestion de cette cité est-ce que tu as une fois entendu le président de la République se prononcer sur ça est-ce que tu as entendu waaw yow nee nga itam la am ñetti weer bi ko wax ci wax kan ci wax combien de fois le premier ministre a fait des sorties pour parler de la politique du pays pour parler de la gestion même de l'État où est notre président de la République moi je n'ai pas voté pour Diomaye Faye n'empêche il est mon président de la République j'ai des exigences envers mon président de la République droit moo ma ko may yoon moo ma ko may mi ngi tukki di dajeek àddina itam looloo ma yéem dañoo waxoon ni Macky Sall mi ngi ci ngi air bi rek du wàcc légui nag dañoo waxoon ni France Afrique. gis nga bëkk dem lu bees tam fa nga dem nuyo ci. maa ci d' accord loolu ah. moo lay wan ni gis nga Babacar la relativité motax gis nga nit lepp loy wax na nga ci dal ndax bëss dina jot mu tegu say loxo nga hmm mhm. bo démé mom ba ni mën naa bo boo demee ba ni mën na <tsk> non non da nga wara a ni mën nga dal amul ay seta à dire ce que déedéet yooyu yëpp amu ci euh, ba du mën lépp nag li mu def grand théâtre moom mooy yëfu maatay maatay la def lu ma neex maanaam maa ne ci bopp kii bi lu ma neex laay def maanaam valant bi moom fu ma neex la koñ bu ma neex laay jàdd xooluma code de la rue xooluma gauche xooluma droite fu ma neex jaar parce que nag man man man waxtaan bi xam nga lu ma ci neex man waxtaan grand théâtre bi yëpp ñaar yi ñoo ma ci neex mooy fi muy nee son excellence ba Sëriñ Diomaye Faye Sëriñ Ngundu foofu foofu foofu marqué na ma torop sax fi mu newee ñun suñu président Sëriñ Ngundu Alaaji Ngundu Sëriñ Ngundu en tant que suñu président xam nga li mu sekk ak président garaawul ñoom seen biir la ay gayen lañ ay copain lañ d'accord yéen a ngi bima bi Macky Sall di nettali mooy bi ñu amee benn xarit bu jigéen ñoom ñëpp ñu nopp ko moom ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye yéen ngi fàttaliku histoire bi bu mu koy raconté mais tu sens que cin bokkul kirek, fin de dañuy dañuy rek da ngay bu ñu waxee nga ne da nga dañaa da ngaa soxor da ngaa far waaye bokkul de sëriñ mundu bi fu mu ko boobu dégg naa ko ci mu marqué ma beneen bi ci topp <laughs> mooy tapis rouge bi dinaa ci dox ba mu ne xanaa tapis rouge sax ñi jàkka ñiy jàkkaarloo man maanaam ñiy def seen réception xanaa sax ñi am na ñoo ñoom ne dañ leen di lalal tapis rouge tapis rouge man mii jox naa ci tapis rouge di wala tapis rouge yi dañoo bokkut ah ñun de suñu VIP bi moom fii fii suñu VIP people bi ma toog nii ñi fi ma fi mës invité ñi fi xam xam nañ ni am nañ tapis rouge am nañ tapis rouge tapis baa ngi nii may gis ñu ngi ciy dox midi matin soir gis nga euh, wax jooju marke na ma touché na ñun ñun fii VIP people am nañ tapis rouge ndax ñun suñu VIP people bii rek rouge la xojal leen rouge <laughs> rouge na Dakar ragal du ko bëgg ragal du bëgg rouge man gis nga ñaari wax yooyu dañ ma marqué ci ci ci ci koromak ci badu mën lépp euh, nañ liggéey bàyyi caaxaan gi te nag ndeysaan boobu ba léegi daa ne tekk nag te moom nag xam nga lu problème am nekk bu newee tekk dañuy wax ci moom bu newul tekk dañuy wax ci moom xam nga nit man yenn yi sax je me demande est-ce que du weex dunk waaw dafa dafa doy waar gis naa politique général bi ñu génnee ci ay décret naan waaw bi ñu ko Macky Sall fii décret bi indiwaatuñu ko changé nañ ko patati patata li date bi limité woo c'est pas limité woo lu la du rëcc nañ ci teel a nekk maanaam mbéj bu la du rëcc na nga teel a tàllal say lex ñu mbéj la mu saf benn yoon mu mu mu mu mu mu bàyyi fii ba deux mille vingt cinq deux mille euh, vingt neuf moom bu dee moom moo nekk premier ministre bi dina def déclaration politique générale am foofu ci assemblée national amul décret bi changé nag changé wul amul temps limité temps limité ñàkk limité ci yem dana ko def ndax ñi fi jaar dañ ko def te gënu leen te lañ sol la sol yëre ba ñu daan sol PM moom lañ ko solal kon dana ko def. amul excuse bu ngeen fi meuna gis na nak ay naa di wut ay lay nan waw di statut seeni di di di tok ci plateau yi naan waaw article bek Macky Sall bu mu fi jëlee premier ministre du guna fi genn na fi yoy yeb waxu ñuko tôt ou tard rek ñu genn ñu ne loolu amatul waye fu mu jaar dana ko def kon kay nako def ben yoon rek 90 jours rek 50 jours rek 150 jours da ko wara def da koy def nit da ngay xam sa waref il faut savoir faire la part des choses ce qui est ton droit est ton devoir nit dara pas que sa droit sa nga bayiko mais sa devoir tu dois accomplir ton devoir et c'est un devoir en tant que citoyen en tant que premier ministre mu def politique général. Tu ci loolu la Tu djublu. Way ay tapis rouge ak ay macaron ak ay yoy du débat bi lay yi ngeen koy du ci tekk tekkaaral bii mën gën naa ne mu ngi préparé euh, politique général bi parce que ku dul na tekk moom bu nee tekk rek am na lu muy def yàlla baax na ba tey ci seen scandale du jour de ce 26 juin ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. Euh, is bu tarxiya hmm. bu Touba. xam nga ñoom bis bu nekk dañu togg ay mbana. ay mbana dafa am ku ma ci dajel mu ne ma nanga wax jomaay ne ko. Hmm. bi temps yi ca gannaaw. suñ daan dem di nduggi jën jën. Mm-hmm. maanaam deux cent mille franc lañ daan yóbbu. deux cent mille waaw jënd ci jën. Mm-hmm. mu ne man man li ma daan jëndee deux cent mille. ci jamonoy Macky Sall. fi mu ne nii cent mille franc laay joxe damay am lu toll noonu. wallaay moom. da ngaa mën a fen lu nu wax nga ni nga ko xam tax xamoo xamoo lu nu si du yaa ngi nettaliiti baax na yéen day rek nee na Touba Touba la wax de. Euh, euh, teeñoo buux suñuy bagages yi dem dëkki Touba sagam ki doon dépensoo deux cent mille léegi cent mille lay dépensoo Touba bii ñu xam nii ah man dina wootew dinaa laajte am na am na ay xarit waa Touba de waaw soxna soxna Fall Touba dinaa ko laaj dinaa laaj euh, Mami Diop mi nekk Touba dina laaj Ousmane Seck waaw ñoom xam naa leen Touba lañ dëkk bu fekkee ni léegi ki daan dépensé di yóbbu deux cent mille léegi cent mille lay dépensé il est temps nag ñu wuti kër Touba dëkk fa écart bi écart bi cent mille franc la waxul cinquante mille waxul vint cinq mille écart cent mille franc yàlla baax na baarale yaa ko waxati yàlla baax na yaa ngi waxati de yang bu meunt li do wax rek to netali bi do ko yemele ci sa bop rek ak wa Touba nga genné ci suñu président de la république mu nan jomay genné ci jomay bu mu set yow nettalil sa netali rek te nga genné jomay ah bay len jomay jomay da ngeen ko wara bax yobante bi yëg deg nañ la waaw écartu cent francs kon nak takki bagage dëkk Touba nak jotna na mam Touba dëkk borom Touba bi jotna na ñu bux suñu bagage dem dëkk fa

bu ñëwaatee après. bu ñëwaat joxaat Birame Souleye. Birame Souleye après jox jox Abbas Fall. Abbas Fall waaw Abbas Fall jox ma ma téye man. naa téye si jàmm. non yow moom bis boo téye réew mi jàppal bis boobaa man maa lay bi yow. non non doo téye drapeau bi. doo drapeau bi bi Cheikh Sarr. non dra te drapeau bi xoolal Ousmane drapeau bi. barki alxuraan. drapeau bi ba léegi may wax ak yow. mi ngi ak yow. ba léegi may wax ak yow. Mm-hmm. fóot defuma ko fóot fóot nii. maanaam xam lu may def. Mm-hmm. ndox laa jël rek xooj ko. tilim waaj rek ma weer. nga weeraat torkal ñu bàyyi la nga tàggatoo ko sax. tàggatoo nga. di la yàlla rek. ak jàmm ak salaam yàlla yàlla mos a cet ak làmmiñ ak balaa mos a. amiin Fall ak naaj ak noonu noonu ko soxor. amiin Fall yàlla na yàlla musal si noonu booy gis amin Fall noonu booy gis yàlla na ci yàlla musal amin Fall dama xam li may wax jërëjëf Fall ñi ngay gis ñi ne ci internet bi di af asan di saaga yëpp baal naa leen ci tabaski bi barke alxuraan jërëjëf Fall te yàlla xam na ne xoolal bu ñu ma romboon tey mhm. ñu bëri ñu may saaga ndax bi ma rombee li ñu njëkkalu asan kaa ñu photo wallaay ndeysaan waaw dëgg la jërëjëf Azura Fall la amoon tey moo nekkoon di nuyu patriote yi di leen ñaanal jàmm waaw mi ngi noonu Azura suñu gan ah, vraiment <laughs> Azoura na Diomaye tok toog man da juk Sonko tok Sonko bu jugee jóg Birame sulay jo Birame sulay jo bu jugee jamay ñewat eh way daw Samba mbete mbete nan la ko meuna tuddé sax mbete ñi sey ñi ayante sey mu yinam ah suñu <laughs> yéen la yen yen liñu xex ci Karim wad ak Abdoulaye wad ba gañé ko yéen ngeen yaaka ne yéen di ngeen ko fi am ci rew mi. nekkuñu ci royaume de yéen da ngeen fii def li ko jar pourtant mën na nekk fekk ngeen def lu ko jar waaye nag euh, sénégalais ñi ñu xam ñi ñu xamoon ah Diomaye toog deux mandats Sonko toog deux mandats muy cinq cinq muy dix ans ça fait Biram Souleye Diop toog 10 muy 30 Diomaye ñëw toogaa 10 muy 40 yéen a wax dëgg Azoura yaa wax dëgg ah man sama philosophie mooy on a tous le droit de rêver c'est dans ses am na droit wax rêve am na droit wax xalaatam dañ ko koy nangul waaw mais nag ah Azoura damay ragal da ngay nelaw jugagoo ci li nga nekk de waaw jugagoo ci li nga nekkoon yeewaguñ la sotti dañ la ndox nangoo jug yow yow yow la ilaha illallah quarante ans de pouvoir avec ce ce ce ce ce pastef là c'est yàlla mën na ko de yàlla mën na ko yàlla mooy xam lu muy def yàlla def li gën yàlla baax na yàlla moom <laughs> sénégalais bi ma xamoon Sénégal <laughs> nga xam ne moo lay faral léegi ba nga nekk ca la nga war a nekk mu bëgg la mu fokkati la fa jëlee la fa yóbbu la feneen mais yàlla baax na Azura am na si droit ah. bu ko kenn ne dafa feebar wala dafa dof nag fii moom bu ko fi kenn maa ngi dina tey dinaa bàyyi xel commentaire yi dinaa leen suivre bu kenn wax Azura dafa dof mbaa dafa feebar xalaatam la wax ak rêve am rêve de ça il rêve que Diomaye toog bu juge Sonko toog bu jug Birame Souleye Diop toog El Malick Ndiaye man ñëpp moom mii sax à tout moment mën nañu jiite nekk soon excellence de la république comme que nag xalaatam la rêvam la nag bu ko fi kenn wax dafa dof ak dofut xalaatam la wax loolu moom bu ko fi kenn wax waaw Adourama bu ko fi kenn wax tey dafa réew ba dof xalaatam la wax ak bëgg-bëggam bëgg-bëggam bëgg-bëgg dafa am solo te dafa foor ba tey ci seen scandale du jour ñu déglu ji Abdou Nguer ñëwaat. lan ngeen déggoog boulangerie wax leen ko mooy. kilo mburu bi da daan nekk deux cent dix kilo mburu bi mo ngi 190 gram legi jurom bobu ñu doon daw di nga obliger dag mburu bi manam da nga obliger dag mburu bi 3 quarts nga lek ko dogu sour te bu ñëk da nga don dag dig bi rek def sa sauce lek sour mais legi di nga obliger sinon sax di ngay wàññi ci bop bi bu dem sama mbokk mbër yi moom kilo bi yëpp ngay far dor pour nga mëna sour legi nak jurom bi nga don daw di nga jënd lu ko ëpp ndax fi nga don jënd ñaari kilo di nga fa jënd ñetti kilo mhm. jurom ba ngay daw am na fu ñu ko teg. Mhm. parce que gis nañ euh, meññee yi ngeen wañu wañaar seen loxo mais yéen 53 milliards mante frais sax mu mënu ko subventionné parce que mburu bu ne boo ci teggee juróom ci li ñuy dundee maxu at bi mu ngi nekk 53 milliards mooy mburu kese léegi mburu mburu mburu boobu léegi ci nga dugal ceeb ceeb bi moom da ngeen koo yokk moom moom kenn waxatu 17 750 la lool jar ministre bi ñàkk xamam tax na jaaykat yi ñu ngi ñuy bëgg a rey 18 750 diwlin bi. kazaalika 17705 yéen a ngi ko yóbbu 18000 seen problème ak 18 am na léegi yéen pression boobu ngeen teg seen bopp te yéen ko yóbbee seen bopp de ndax yéen woon bu ñu falee ñaari weer ñu wàññi ñaari weer yi jot nag ameen dooy fàtt leen lëjël leen huit ngeen seen wu. ah bintu ci affaire euh, déficit bi. Mhm. xam nga da nga ne leb 1000 milliards. 1150 euh, milliards voilà donc loolu noonu. Mhm. du ma ne. président Bassirou Diomaye fait la. Mhm. xam nga tamit administration sénégalaise. Mhm. xam nga administration sénégalaise ça dit dire que aujourd'hui ministère des finances. un mhm. budget. ña fa fait di liggéey moy sénégalais yi nga xamni ño nekk ci administration bi di liggéey ño fa nekk ba tay di liggéey. comprendre maintenant bu ñuy budget 2024 2024 au mois de décembre. dañ def benn prévision déficit budgétaire bu huit cent milliards boo xam ne dañ ko war a ci at mi bu ko uti jiwul ci at mi décembre day am ay tension de trésorerie bi mooy maanaam bu ñu yeggee mois de décembre bu demul leb ji huit cent milliards yooyu noonu mu neen dem ba nga xam ne duñ mën a fay salaire administration yi. Mhm. donc problème dafay am. pour ma leeralal la ci par rapport ak milliards yooyu. dafa nekk ay dette bor yoo xamante ne ci niñ ko defee emprunt bi dañu njëkk a cent cinquante milliards yoo xamante ne nii ci marché IOMOA la daal di jógee. Mhm. ñu lebaat vingt huit milliards ñu boobu xaalis boobu ñu ngi ko jot la 3 mais bi nga xamante ne ci lañ génn ak soixante huit milliards ñu jot ko le 31 mai cinquante milliards yoo xamante ne le 6 juin la ñu ko daal di jot milliards bu bat ñu daal di koy jot euh, le 11 avril 450 milliards yaa ngi ko doon wax sànq mu nekk euh, eurobond yi ak bor boo xamante ni moo ngi ñëw te FMI moom moo ko fas yéenee joxe mu nekk ci 230 milliards ci mi juillet bi la ñu war a jot loolu léegi soo defee cumul bi daf lay jox 1150 milliards yoo xamante ni le gouvernement actuel moom la ñu lebagum léegi nag man réponse bi may laaj réponse bi may laaj mooy ci diiru 3 mois mm gouvernement bu fi 1150 milliards qui pays bu endetté bu melni Sénégal. non laisse moi expliquer. la lépp bon, c'est-à-dire que montage de dossier dépasse dépassé trois mois. comprendre fi xam nga c'est des prêts au niveau des partenaires multilatéraux ak partenaires bilatéraux dafa am dafa am partenaires bilatéraux moy France Union européenne ak yoyu nga am partenaires multilatéraux yi moy ay BAD Banque africaine de développement nga am FMI nga am banque mondiale loolu la wax les partenaires multilatéraux après tamit nga am le marché financier international mooy ay eurobond ak maintenant aujourd'hui xam nga Bassirou Diomaye Faye bi mu recevoir Charles Michel daf ko ne sunu coopération ak Union européenne ak Sénégal il faut que nous xoolaat ko parce qu'il faut le rénover il faut le revisiter et il faut le fertiliser kon aujourd'hui il n'est pas logique nga nga diversifier sa nooy lebee mm-hmm. donc lépp yooyu ngay wax biñ ko commencé def dossier bi ñu ko commencé monter yàgg na depuis ay mois de janvier février la ñu monter ay dossier ministère des finance xam ne ne mois bi bu jotee fii la ñu war a dem mois bi bu jotee fii la ñuy utijee xaalis mois bi bu jotee fii la ñu war a utijee xaalis parce que on a un déficit de huit cent et quelques milliards à combler. moom problème mburu bi la am <laughs> ndax nee na mburu Diomaye dafa am mburu Macky Sall la am. Euh, mburu bi maanaam euh, loolu loolu moom euh, ku am xel ku amul xel waroon na xam ni il faut il faut il fallait s'y s'attendre parce que bu ñu nee wàññi nañ mburu bi te arrangé wul boulangerie yi du ñu wàññi dimension mburu bi waaye dinañ wàññi poids mburu bi te li ñuy naan qualité ma gënal quantité ñun dañuy am quantité du ñu am qualité ndax di nga gis kuñ lekk ñaari miisu mburu ñu naa diw nu mu mënee wann diw nu mu mënee lekk fekk yàlla xam na ni ñaari cent yu mu daan dajale lekk loolu la lekk ba tey maanaam boulangerie yi dofu ñu de sagam wax nañ nee nañ leen ñu wàññi leen six mille ñu ne déedéet ñoom quatre mille lañ mën ñu ne leen ay aywa d'accord léegi nag wàññi bi d'accord dinañ wàññi dërëm ak ñaari dërëm waaye poids muru bi ci boppam la ñuy wàññi ku daan lekk miis da nga lekk ñaari miis maanaam boo doon jënd benn di nga jënd ñaar sénégalais rek <laughs> yéen yéen a gënoon xam ni ñii bu ñu neewee dañuy wàññi mbur wàññi sax danañ wàññi de waaye kii bi nu mu tuddati euh, poids mburu bi ci boppam la ñuy wàññi poids mburu bi lañuy ñuy wàññi Abdou Nguer nag li mu leen wax leer na bañoon a wàññi gën ndax wàññi mburu ba pare ba pare ku ci nekk ku waroon lekk mi benn miis war di lekk ñaar ba ñetti miis ndax poids bi la ñuy wàññi mu ngi noonu boulangerie dafa ñu de d' accord wàññi leen ñu ne mënuñu leen wàññil six mille quatre lañ leen mën a wàññil ñu ànd si ak yéen waaye ñoom it ñooy ñooy defar seeni mburu amul leneen bëgg sa bopp du bañ keneen il faut ñu xam loolu bëgg sa bopp du bañ keneen voilà boulangerie yi euh, boulanger yi wàññi nañu poids mburu bi wóor na yàlla wàññi nañ poids mburu bi bàyyi leen xel bu baax ci li ma wax ci li Abdou Nguer wax aussi c'est très important batay ci sen scandale du jour de ce jeudi 27 juin ñu déglu ci Cheikh Bara Ndiaye ñëwaat. wallahi Lo bu alxames nak ma seetaan alxames nak ma sétan di nga xamné ñi di layal sonku ñepp ñëpp ñu lay dina ko lay lay yu juba juba jub yo xamné ni nii bu ñu fa joggé di nga xamné manam gaay gars yi dañuy nax rek nan ñu enam ak concours ak sëñ bi amut benn école buñ naan fii la ñuy jàngale njiitum réew amut gaa yi yëpp dañuy sóob hmm. yërëm naa nag ki jàpp ne gaa yi sóobuñu bam tee koo sóob Macky Sall sax day na nappaate amul fenn fu ñuy jàngalee conseil de ministre amul fu ñuy jàngalee débat politique toog ci plateau sab xarit weewale nga ñëw toog dafa si yéene ne weewalewut yooyu amut de amut fenn hmm. man fii ne xam gi xam ne Ousmane Sonko daa dem ca euh, massaskat ba wóor na ma euh, mbirum euh, maase wu ñàkk maase wu Cheikh Bara Ndiaye moo yëkkati woon kàddu yi lii nag mooy Sénégal c'est le Sénégal man lii nii bettu bon pour diir vrai une première fois man ma déglu ko parce que déggoon naa ajooy fuité Cheikh Bara li mu wax sonk li mu waxal ni day layal sonk ah lii mooy Sénégal ku fi ëppi làmmiñ gën a laa gaaw ci problème amul sax demal maa ngi ñëw yow nit ki boo jote woon ak moom sax am na ñoo xam ne boo jotee ak ñoom bu ñu la njëkkee nettali yow jarul ngay nettali fexe noo fexe ba am fa dëkk boo amee nag ay mag yu naa fekk yu mën a fen sañ am fit ragal ñeme yàlla ñeme toog ci plateau xam li ñuy xam ba pare di wax leneen ah résultat baa ngi nii ki tax nag mu jaral ko mu jëndee ko yoonu bi mu nekk jëndee ko diine gi jëndee ko jàngale bi jëndee ko garabu garabu bi mu doon jaay ah c'est normal layal ah bu ku mu neex layal sa nit ku mu neex layal sa nit man sama doomu ndey sali buñ buñ buñ ma newon woon la sama ne leen anama lek bëgg ma layal ko nguy nonu patek samba nonu waaw lay <laughs> fi ngay gis nga jote ak nit xamalu la tarfatal ay nit tok ci caméra yi Nan wow, sa jëkkër sabai sa sabai ni sa bay doom ni sa wujju go bi ni yo nga xamne li nga ma waxon yo nga xamne li nga daan def fekk yalla mi ñu bu nekkul ñoom bu ñu ci akhiru zaman yalla mbab la wan la bopam tellement li ngay wax lepp lepp ay sos la waaye gina nit bu defé lu ne weng nga né yo dang koy layal <laughs> sénégalais mën nako ko sénégalais mën na ciu mën tia mën ca roroo mën nañ hmm genn na ci di té té nak da ngay wax ak wa pastif débat bi lu mu neex neex neex neex neex bo ci mbirum aji sar ñu wacc amna ben benn mu naan ma naan ma Sonko luñ xala pro pro luñ ko waxal dañ koo tuumaal ma ne ko ah pro de ñu bëri début bi dañoo àndoon ak moom mu ne ma waaw mais ñu dëgg moo tax après finalement ñu bàyyi ko ma ne ko waaw boo ma mayee ma yegg rek ñu dem ñu yeggali débat bi ma ne ko pro de bu njëkk ñëpp àndoon ak moom ma ne ko pro bi mu njëkkee posté ne carrément ni demul foofu xamul ndaw si Nous devons dañ ni alhamdulillah parce que en tant que en tant que député en tant que euh, homme politique en tant que candidat jël troisième e aux élections 2029 euh, un homme populaire comme lui un homme qui a cette qui a qui a toute une jeunesse derrière lui nous def erreur yo ah, pour alhamdoulillah alhamdulillah bi mais à ma grande surprise mané ko dañoo que quelques quelque temps après nous gis mu supprimer ko ma ne ah garaawul peut-être compte bi la peut-être dafa am ku ko supprimer dafa am dañoo bannir compte bi man noonu laa ko xalaatee ma ne ko d'accord parce que boole leen ko amoon amoon na ay temps on utilisait plus Facebook que TikTok on utilisait plus Facebook que parce que bu leen fàttali ni TikTok moo fi jëkk kii autant pour moi Facebook moo fi moo moo fi jiitu WhatsApp Facebook moo fi jiitu TikTok Facebook ci la amoon message mën nga woote Euh, euh, connaissance yi koo gëj gis fa nga ko daan gisee maanaam lu bëri publication yi ñuy def ci TikTok mi njaay mi yëpp ci Facebook bi la amoon ma ne ah peut-être dañoo bannir compte bi moo tax mu ñu supprimer ko mais heureusement il y avait des gens qui avaient capturé cette publication mu des ci seen téléphone mais man li ma man man man man man bi ma ci génne man kañ laa ci génn man wax dëgg fa yàlla man euh, au début man man man man nee naa leen ba tàyyi sonk bi muy ñëw Vélingara man bokk naa si ñi taxaw di xaar caravane Sonko bi finalement ñu ne du ñëw te boobu xaar nañ taxaw taxaw donte lendemain bi on devait aller à l'école mais turam bi yeggoon na foo xamante ne tout le monde avait cette envie de voir Ousmane Sonko ma ne ah garaawul ñu ñibbi. ñibbi ci nak boole ci nak euh, suñu papa yor ya tok ci buntu bi naan fan ngeen demoon reer amul te reer yaangi xor reer bi ñu ne la do reer ndax sagam nga dohi won ya xam tok mi li ma gën sama aduna, moy bi Sonko toge wo feres bi mané ko señ bi mu ne mané ko lima ma metti sama aduna, mané ko man ba kérok muy tok nan nam dem na fa 21 heures mën na ko ci toujours défendre que tegu fa tànkam même bi ma gisee ñu dindi publication bi dama ni un homme comme lui ma ne déedéet demu fa mais li ma sa li ma gën a nekk mbettal si ma kaw àdduna mooy bi Sonko toogee ne waaw naam dem naa fa euh, vingt et ma yegg ma ne leen dix minutes laa leen may kee na ñëw fii kee ñëw fii mu commencé naan ma nii ma ne ko waaw loolu loo loolu la wax di ma ne ko da ngaa bëgg ma génnee vidéo bi ma ne ko moom moo ko wax di mu ne kenn ki na ñëw fii kenn ki ñëw fii ma ne ko dix minutes euh, dix minutes laa leen may ma mu jox leen cinquante mille ma ne ko naam dem naa fa ma ne ko si laa ci pare gedd gedd faw nag xam nga am na ñoom dañuy gedd man damay gedd fa laa jaaree gedd mbir mi faw nag génn ci ba mu set wicc ñama daan xuloon ne leen demu fa gàcce bi ma bëgg a rey ba pare ñu lancé ko défi guerrier bu mel ni moom xale bu jigéen bi génn ma ne ko ndaw si dafa génn ne carrément du ma sa def ñeent ñaari bët ak moom maanaam face to face nii nga xool ma ma xool la comme yéen ni ngeen may xoolee nii ma ne ko musul relever défi bi musu ko jéem au contraire ay lay la indi ma ne ko nag c'est pas facile de le défendre quand même ma ne ko côté yi mën nga ko defendre mën na ko boo ñëwee ci cas Mame Mbaye Niang pour ñi koy layal ma xam ne ñoom ay jàmbaar ñi ko layal ci àdduna ay jàmbaar lañ parce que ki toog ne yor naa lépp ñu woola la woowaat la nga jaawale lee jaawale ñu ne la d'accord léegi indil ñu papier rek ak bu mu munti doon ñun na doon papier rek indil ñu ko nga taxaw Kër Massar naan du diffamation de du diffamation ci internet bi laa ko jëlee moo tax bi mu taxawee garab te grand théâtre naan man li mu wax grand théâtre yi nee naa leen lii moo bon sama xol mayetuñu kenn wax ay waxam naan ci internet bi laa ko jëlee yow yaa ko fi bu dee cosaan yow yaa fi ñëkk a teg ci yow cosaanu gis ci internet bi laa ko jëlee ci yow yaa képp ku koy wëri yaay papam yaay ndijaayam yaay yaayam nga ne yow da ngay tere ku jëli dara ci internet bi naan sama source internet bi la te yow nga accuser nit lu mel ni ay millions milliards nga taxaw nga ne ci internet bi nga ko lii un homme ku génnee anam ku toll ni yow yow jaawale nga si wit bote yow jaawale nga IG yow jaawal yow yow preuve foo ko jëlee nga ne internet nga ne yow kenn warul du jëlee internet moo tax ñi ko layal ñoom ñoom ñii ñoom baaralee mii ak ñoom jaaykat garabu garabu yi ay jàmbaar gen ay jàmbaar gen nit moom yàlla bu demee ba jëlee kersa ci sa jëmm deseetoo dara kersa rek mooy doomu aadama ndax kersa mooy tax nga naan jomm naa def lii kersa mooy tax nga naan lii duma ko wax kersa mooy tax nga naan lii duma ko def waaye yàlla bu jëlee kersa ci yow yow ab xob xob ka galoo bu ñëw yóbbaale la yàlla baax na ab Nguer lu mu wax nii wallahi ànd naa ci ok ba tey ci seen scandale du jour toujours foofu ca Burkina ñu déglu ju vidéo bi ñëwaat devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso pour dire deux mots à Diomaye Faye et à son acolyte Ousmane Sonko. Et s'ils ont utilisé le mot panafricaniste pour arriver au pouvoir, ils ne peuvent pas diriger le peuple en manipulant. Voilà, prendre euh, la peau de l'agneau, alors qu'à l'intérieur, tu es le lien ou la ours, ou bien la panthère qui va dévorer. Nous, en tout cas, le peuple burkinabé, nous sommes conscients. La manipulation ne passera plus ici. Soit Diomaye Faye et Sonko s'inscrivent dans la dynamique panafricaine, soit ils se taisent et ils nous laissent notre pays se diriger. S'ils s'amusent, nous allons fermer leur ambassade tel que nous voulons fermer pour la France aussi. Voilà, il n'y a pas à faire d'un pays africain. Un pays africain traite qui veut jouer à la traîtrise, il sera traité. Au Burkina ici, nous on verrouille et on traite efficacement. Voilà. Le vrai Mandela. <laughs> Au Burkina, nous on verrouille et on traite efficacement. Donc il n'y a, pas, pas de traiterie ici. Tous les traites seront traités. Tous les indépendants seront traités au Burkina Faso ici. Voilà. Nous sommes venus dire deux mots à Ousmane son à Faye. Prenez le chemin de la vérité. Si vous restez dans le faux, nous allons demander à la jeunesse sénégalaise de vous chasser du pouvoir. Voilà. Oui, yéen a xam de suñu yoon néew ci suñu ngañ ñi newu ci waaw suñu yoon yoon yoon yoon yoon néew ci waaw panafrique mi man Zeyna wootewul fan te am na ay sénégalais yu wootewul panafrique panafricanisme ndax nag booy wax loo xamut di wax loo mënut nii la mën a demee fu mu nekk nii Sénégal ñun nawlawuñ ñu respecté wuñ ñu balaa nga koy xam mooy euh, mbirum euh, déclaration politique générale Ayib Dafé kàddu yi ñu yëkëti demb ak kaddu tay yi ñu xol lan mo ci euh, lan lañ ciy japp ak lan lañ ciy bay yalla baxna heureusement VAR amna ñu déglu ji Ayib ñëwaat. également de scandale avant d'arriver au scandale je voudrais corriger ma chère collègue honorable députée Astou que la motion de censure on ne l'a pas fondée sur le règlement intérieur mais si vous aviez lu le document qu'on vous a remis c'est sur l'article 86 de la Constitution. Il faut lire les documents, chers collègues, de l'ensemble lyrique traditionnel de Benno Bokuyakar. Voilà, donc euh, ce gouvernement, on a dit que sur la forme, ce gouvernement est pléthorique. Il n'y a aucune autre loi qui a été prise pour modifier le règlement intérieur. Donc normalement, dans le règlement intérieur, les actes 97, 98, 99 anciens ne doivent plus être retrouvés parce qu'ils ont été supprimés. Les chapitres dont on te parle également ne doivent plus être retrouvés dans ce règlement intérieur-là, puisqu'ils ont été abrogés. C'est ce que dit la loi organique modifiant le règlement intérieur en 2019. Donc, par voie de conséquence, donc tout ce qui est lié à la déclaration de politique générale ne figure plus dans le règlement intérieur. On vous a parlé d'un délai de trois mois pour tenir la déclaration de politique générale, ça n'existe plus. C'est supprimé, c'est abrogé depuis 2019. Le délai de saisine de 8 jours pour tenir la déclaration de politique générale dans les 3 mois ne figure plus. La motion de censure ne figure plus dans notre règlement intérieur. La question de confiance ne figure plus dans le règlement intérieur. defaraat sama sama defar defaraat sama tooge ayib defee hey euh, ñii daal maanaam bu loi bi nekkee seen wét baax na bu nekkee ci beneen côté baaxul maanaam bu loi bi nekkee contre ñoom loi bi baaxul bu nekkee à faveur baax na du samay wax nag Ayib dafe mo yëkëti kaddu yi demb ci Amadou Ba bu mu waré def déclaration politique générale waaw kay Macky Sall bu mu fi jëlé mbirum premier ministre ku mu fi tagat ku mu fi ñëkë tagat Amadou Ba mu wara def déclaration politique générale de ngeen article yamu lire constitution ba mu laal légui nak limu wax non ci biir assemblée bi man lolo ma intéressé d'abord limu wax ci biir intérêt ci biir assemblée bi. loolu mooy li fi nekkoon bi Amadou Ba di nekk war a def déclaration politique générale loolu mooy li ko war a def ci moment bi ñu toll parce que dara changé wul ci diggante bi pour naa fekk yi nekk ci ci ci ci plateau yi naan waaw il n'est pas obligé de ay naa fekk ngeen doo leen ay nit ñuy wax dëgg tekki woo leen dara démb te yàq ngeen métier bi man Zeyna man maa ko wax Ayib Daffé nag. mo wax li du samay wax demb arrangé woon na ko arrangé wu ko ndax nak ñi ñu ji ki ñu jël def ko sen bay def ko sen ndey def ko sen yalla tay mbir mi la laal motax tay arrangé wu len tay duñ ci wax te pourtant c'est le même c'est la même personne qui parle moom moo nekkoon assemblée nationale di ralli ralli ni mom mo togat rusul amul kersa amul rusukaay toog ci conférence de presse di yëkkati waay yeneen kaddu yu bokkutoon ak yu mu wax fële ñii ñoo ñu jiite ñii ñooy suñu ay dirigeant ñii ñoo ñu représenté ñii ñooy baatu askan wi biir assemblée nationale ñun xale yi ñun sénégalais yi bu fi kenn ne man guinéen laa loolu lañ laa bañ a di du ma guinéen suis sénégalaise bugguma benn problème est-ce que yéen a ngi may dégg Ayib Daffé démb la mu wax ak tey la mu wax ci conférence de presse bi ñaar mu ngi mel yàlla ak yaali si tiit jot na nag man sama tiitukaay dafa jeex ndax ñii chaque jour dangay tiit ci ñoom sama tiitukaay dafa jeex na c'est fini jeex na ah ay ñun fu ñu jëm ak ñii ku wax rek ñu waar la ku wax ñu indi la sa waxu démb li gàcce la ci honorable député ah Amadou Ba moo ñaaw yaay kay démb Amadou Ba la woon li tubaab di naan chacun à son tour c'est le coiffeur waaw kay yéen a ngi c'est le coiffeur nag danañ leen wat force xaw ma dégradé ngeen di wotu waaye seen tour yegg na xaw ma da ngeen di tent seen tour yegg na c'est le coiffeuse xaw ma da ngeen di ndal seen tour yegg na c'est le coiffeuse kon nag na ngeen assumer génn sa caaxaan yi ngeen di nekkee ci tappal yi ngeen di nekkee dégg naa kee moom beneen député bi ki nekkoon fii naan France dégage te bi mu amee vacances dem toogi France naan ay sonk boo ma déggalee bul dem amoo la ñu ñii amuñu jom maanaam lépp loo xamante ne jom ak fullaa koy mën di ñii duñ ko am parce que nit dangay ngay am fulla am loo bañ waaye nag boo amul loo lootee moom munoo dem fa ñuy joxe parce que doo joxe ni ñuy naan borom baatu nen ak borom ki takk càkk du ñu xeex ñii takkuñu càkk amuñu lam amuñu jaaro amuñu dara xam nañ ñu fay fekk wallaay xam nañ ay kàngam ñoo fa nekk te nit ki loolu leble dañ la koy fay lépp lu mu leble woon biir assemblée nationale di wax lu ko neex di def la ko ne danañ ko ko delloo ba mu wis ko te mu am munul fexe ba du dem comme gàcceem la amul jom moo tax kenn respecté tuñ les burkinabé ñu ngi ñuy xas les maliens ñu ñuy xas kenn nawlootuñu yow chaque mois rek ci yow dinga indi li tax dina jur polémique dinañ ne lii ak lii la mbirum dund gi jàll na fi fexe ngeen ba def ci kamu fele ba kamu fele ko sénégalais yi kon ko ñoom li ñuy naan seen xel euh, na ma yàlla baal ñi ñenn si ñun xalaat bi soriwut bàyyi nañ mu sedd te xamuñu ne dara changé wu ci maanaam peinture bi lañ lañ lañ lañu xaw a kii tuuti rek dara changé wu ci génn nañ ci loolu def nga sa discours fele def wax say toj toj polémique nañ bi ba jé légui mbirum politique générale ngaa ngoo yeeyoo yàbbe woo nak na fekk mi ñu tok ci plateau yi naan songu da ci waxagum dara waxagu ci dara ta légui la problem problème bi légui la mooy problème lu tax wax yu bari ji nar bu ndaw bi lu mu wax ci nar bu mag ba la ko dégg pourquoi yeen sen député yi génn naan euh, euh, dañ koy protéger bu fekke mom waxut ñoom lu ñu ci yeey di bi du ñu bàyyi sénégalais yi rek ku ci nekk wax sa xalaat ba heure def bu jotee ñu def waaye ñoom ñoo géej gi dëggal dut sénégalais yi di ku moom xar mi ngeen a buum bi yéen fii lañ wax fenkat ngeen moomale ko seen waa ji bu ñu waxee waxum politique générale waxu ci kay loo leen koy moomalee wax ji premier ministre à trois mois yow taxawoo ba tey assemblée nationale waxoo dara projet bi joxe woon nga fi date dim jékki-jékki taxawaat fële changé naan mois de septembre septembre dina ñëw looy bañ mu yegg si bu ko jàppal bis septembre mu ngi ñëw ginnaaw soo bëri premier juin juillet incha allah bu ñu jógee ci juillet dugg ci wut incha allah bu ñu jugee ci wut dugg ci septembre ah bu fekkee tekk tekkaaral bi projet bi ngay yeggali ak ah, xayrun waaye politique général bi moom sagam Ayib Daffé moo waxoon li ci Amadou Ba bu leen bañ ko wax ci Ousmane Sonko gënu fi kenn pourquoi ñu doon ŋàññ politiciens yi ngeen bëggul ko wax ci moom ba paré ñak fayda woya di man suma jigé ay nit ñoo xamanteni suba war nañ nek ay yaay nek ci plateau yi di di fen di dajale na fekk ñemewuñu wax dëgg yow nga fen ba xalé yu ndaw yi sa nek ci tiktok bi di la taf xamni yow am kat ga ngeen di layal ko xamante c'est ku sañon défendre ko mi da ngay xol da ngay dem bu ci buntu bi duku. dugg ndax lamu wax limu mu len yéen sax mu ngi ni var kan la dal ki jité sen yeew yi Ayib fe mo waxon li demb ci Amadou Ba tay mu bëgg layal ke, da gën Amadou Ba li Amadou Ba solon la sol rek PM PM mané ne génn leen ci sen tiaxane ak ci sen nafek yi te xamna yalla fi ne te yalla, ñuy gis nan yalla moy fal war ngeen mëna noppalu ndax yalla yeen bo leen sañoon ki falu du ki nee leen <laughs> liggéey ndey ak liggéeyal sa ndey dafa am solo am ñoo xam ne président excellence dégg rek lañ ciy am du ñu ko mës a doon ñu ko mës a dégg excellence ndamoo nañ fi tapis rouge ñu écarté leen bu ñu waxaatee pipe jëmale ko ci pale bi ñu écarté leen ndax état fi nekk amul maay yaay jur amul maay papay diw jamaay tey papam bi ko jur bu ko bëggoon gis dafa am procédure bu muy jaar parce que on sait jamais kon nag waxantuma laa koo xamante ne connaissance la xarit la du xaritu tey yii boo jàkkaar la moom mu woon la moom la boo ko wonee ginnaaw mu jam la te bu sañoon dala yéene ba pare génnee yéene bi indi leneen ñaata ni lañ fi gis ñu dimbale la ba nga ba nga commencé avancé ñu nekkaat ci ginnaaw du dem ci ay sëriñ wala ci daw ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo la war a jàppale di yàq sa der ba ñooñu bañ laa jàppale bëri na fi torop kon nag am na ñoo xam ne bu dee da ngeen di toog ci plateau yi naan li ñu bëggoon amuñu ko président président parti moom moom man sax mën naa nekk président parti man sax man tay tay tay tey tey mën naa nekk président parti waaye son excellence le père de la nation ki yor buum bi di di di di dina am di am ne dégg rek lañ ciy am illaa yow mi diini duñu ko doon yalla naka xam bu dee yàlla di nguuram bi dina ko jox fenkat jox ko kuy dige jox ko kuy toog ci palaasam jox ko kuy wax loo xamante ne bu waxee tey midi mu génn ci. ñu déglu ji euh, ba tey ci seen scandale du jour ñu déglu ji Birame Souleye Diop. du am ku ñuy fekk ñu koy tuddee ngénte ma wax ko mu leer du am ku ñuy tuddee match football ndax tur wi baax na sant wax du ci bëri. mané ko sama énergie duma ko ci yàq sagam ñoo jël var rek ndeyale ko seen bop bàyyile ko seen bop tane duñ ko bokk ak kenn arbitre bi da melni tane na sax fanni da wala wa FIFA ñoo ñu te yeguñu ko si ay man ñun fu ñu jëm une première fois dans l'histoire c'est dit n'importe quoi yalla baax na ba ci sen scandale du jour ñu deglu ci Ibou Fall xif nañu xel di xëccoo lu ne li les faire

E ou Senkantan lè nè lal Jomay Jomay 10 Sonko 10 Moui 20 Apre Gimaris 10 Mwen dembo Karadine lal Mou bay lè nè lè Mou bay lè nè lè mais yow yaa dàq ci àdduna bi quoi <laughs> yaa ah, dem bu jëlee réew mi bu da koy teg ci yoon de. moo moo jëloon ay jox ay leçons agrégé de de droit <laughs> <laughs> Sénégal neex na. mais fii la réew mi toll. oui oui. tellement à l'aise man damay dégg ñu naan non dafa bañ pro xolam bi dafa tàng abal ma sa xol bi di nga souffrir cinquante ans yéen da ngeen xam ndax cinquante dina leen fekk ngeen di dund yéen da ngeen xam ndax si di diggante bi da ngeen di di on sait jamais cinquante ans <laughs> eh, yéen da di nalaw. gis naa dof yi toog naan bu Diomaye jugee Sonko toog bu Sonko jugee ay eh, Souleye Diop toog bu Sonko Souleye Diop jugee sama doomu ndey toog El Malick Ndiaye toog bu El Malick Ndiaye jugee Diomaye toogaat <laughs> xam nga moo tax ma ne Sénégalais ñun on ne nous respecte pas Sénégalais yi ma xam ñoo fiy teg ki ngeen wax teggi ko fi tegaat fi ki ngeen wax teggi ko fi tegaat fi ki ngeen wax xanaa ñun kon ñun kon xanaa ñun yàlla ay ah yàlla baax na damay bañ wax lu ëpp yàlla baax na lii ah Ibou Fall moom fa mu toog la toog nekk à l'aise du déborder du wax waaye la muy wax tey bineegar seen xol day tàng seen xol te duñ ci mën Papa moom na dafa toog fu ñu climatiser xam nga à l'aise di wax la ka neex fa ka neex nu mu ko neexee teg ko ci yoon te doo leen ci mën Papa Ndiaye ndax luñ leen waxal yéen la est-ce que xam ngeen dara man mbirum politique déclaration politique générale je vais être très sincère avec yéen maa ngi koy dóor a dégg ndax coow lii xaw ma woon sax lan la woon. bi ma déggee nga ci laa toog laajte ma ne leen c'est quoi une déclaration de politique générale ñu expliqué ma da ngay indi sa projet teg xamal nit yi fa nga jëm xamal nit yi fa nga jëmee réew mi xamal nit gi lan ngay waajal sénégalais yi lan mooy sa programme nga koy jokkalante ñu la koy laaj ngay wax ma ne leen ah ok mais billahi wallahi wa taalaahi mirum maa koy door a ay déclaration politique Madame da nga ko mais tu prêtais pas attention parce que musul am coow bi mu am ni c'est une première fois wala bu fekkee ni ñun ay xalé lañ xamuñu ngeen wax ñu bu fekkee li coowal mu déclaration politique générale ba ñi ci conférence de presse di ci yey di ci yebbi ndax musta am ngeen wax mako ci commentaire yi ma xam parce que j'ai jamais assisté ci coow bu mel ni ci mbirum déclaration politique générale wax deug fa yalla bima ma mi la ko dem gestu tapé déclaration pour jeune ñu gënël ma bu Amadou Ba gënël ma yeneen ak yeneen kon nak na nga seetaat sa bop sa mam da daan bo ñëwé ci dëkk fekk ñëpp di doxé tanku nen sa dal li lu mu rafet rafet da ngay simbi dox tanku nen ndax say njaatigi yow nga bëgg ñëw def e, e, exception di wutum di layam layami ñu lay layam layami yalla baxna na. ba ci sen scandale du jour ñu deglu ci vidéo bi ñëwaat. ko premier ministre di ragal. pour dem jakarlo ak assemblée bi Mor wax nako assemblée bi mom wax deug yalla législature bu nga xamanteni mo gëna doy war ci législature yi mom mom mo fa nek mais mo fi nek mhm. mais mo fi nek donc tay la nga am mom ngay duggé ci marché. Mhm. moi je trouve que. dem jàkkaarloo ak député yi. Mhm. wax ni yéen askanu Sénégal. Mhm. yéen a ñu wóolu fal ñu à cinquante quatre pour cent. Mhm. li nga xam ni mooy juróomi at yi di ñëw. nii la ñu bëgg doxalee réew mi. budget bi ak xaalis bii fii lay dugg ak fii lay dugg pour jub jubal jubanti boobu nga xam ne moom la ñuy wax. Hmm. ñu mën ko dëggal. Hmm. donc loolu je pense que man pour man amul problème te c'est même tout tout à l'honneur de notre démocratie. Hmm. que tey un premier ministre taxaw def déclaration de politique générale devant une assemblée bu nga xamante ni sax xëy na. le pouvoir ñoom dañ fa am dañ fa minoritaire. donc loolu pour man amul amul problème motion de censure bi nga xam ne moom lañ ciy ragal euh, soxna Fatick. Qui même règlement bi le Hamadouba Ba mhm. faire une déclaration de politique générale Qui mhm. même règlement bi ci l'honorable l'honorable euh, député Biram Souleye Diop déposé une motion de censure mhm. contre la déclaration de politique générale euh, de de donc pour moi, il n'y a pas de problème Il y a pas de problème. Hein. Ousmane Sonko Malick de la de danañ la mere may dégg ñu naan la yemal ci làmb ji lu tax muy yem ci làmb ji da nekk sénégalais sagam ñi doon seet di jaay garabu garabu léegi ñoom ñooy toog di joxe di di di di joxe di di di di di di di chronique di wax ci politique di naan preuve yi am naa ko jomaay soxlaa na ma woo waxantuma la Malick Thiandoum mi ma xamantene ne am na culture générale Malick Thiandoum il est très intelligent Malick Thiandoum quand tu l'entends parler français tu sais que c'est un intellectuel je le défends pas mais c'est la vérité Malick Thiandoum man j'adore l'écouter bu newee ci lamb nga ne moom la bu ci chronique bi la c'est un Sénégalais il a des idées claires maîtriser l'actualité pourquoi pas ñukoy koy laaj muy jox xalaatam vous vous pensez que yéen rek yéen am xalaat te sen xalaat baaxul des ignorants qui refusent de connaître de comprendre que ce sont des ignorants qui refusent d'admettre que ce sont des vauriens des ignorants Xamoleen leen tous war nga yem ci lamb vous croyez que c'est pour rien TFM jël ko chaque matin taaj ko ci seen palaatu boobu c'est parce qu'ils leur apportent quelque chose gis nga ma wax leen dara gis nga télé yi ku ñu téye rek c'est parce que dañ leen apporter quelque chose li ñu ne en matière de business y a pas d'amis wallaay ci télé yi laa ko xamee amal amal lool man am na benn télé boo xamante am benn télé boo xamante ne woo dañ ma benn yoon mbirum kuréel yi eh, ndeysaan ndeysaan c'est une première fois ma nekk télé bi ñu newee un jour trois ba ñu ne ñu posé sujet bi rek naan ma débat loo ci sëy naa loo ci xalaat ci weerum koor la woon waaye gis nga ba ma ca génnee ma xaar pour man dinañ ma woowaat woowaatuñ ma barki rasulillaay woowaatuñ ma woowaat parce que ne mais kii kii dafa feebar wala yàqamte woon nañ émission bi jeex pour ma abal leen seeni plateau boobu j'étais une débutante xaw ma ngurne yalla yàlla nak nag nak malik tiandum bu fekke apotelul dara waa fm tout tax ñu fay tek te mu nek lambolok son reporter de lampe il communique bien il passe une information juste et vraie yéen loolu mo len di déranger ba ñu naan yo amo lo wax yeen da ngeen am li ngeen wax yeen ñu wax ba jéxal ngeen sénégalais duñu wax sagam ñi jaay garab sagam ñi sep ngeen jox seen plateau yi ñuy fanaka dajale ngeen mo Malick kandum amul droit tok TFM di joxe halatam ci mbirum ci mbirum politique wa kan mu kan mo mom politique kan mo judd ci politique kan mo mom politique il faut arrêter quand même respecter le grand même malik nanan la li muy wax nag bu leen arrangé wul yenn xam ndokk waaye dina wax de billaahi dina wax ñi daanul wax yëpp dinañ wax ndax yéen Ameth Ndoye pourquoi il s'est converti en en chroniqueur yéen yéen a tax Ameth Ndoye ce n'est même Ameth Ndoye koy laaj mu ne la du ma journaliste je suis présentateur et animateur mais yéen pour yéen ñii ku bëgg a nekk chroniqueur nekk chroniqueur ndax chaque jour ngeen teg ci loo xamante nit mën na ci wax ci yéen sans mu am culture générale parce que li ngeen non man yéen de yéen maa jaa yéen avec yéen tout le monde va être des politiciens vous faites du n'importe quoi vous dites du n'importe quoi et vous voulez pas que les gens en parlent yéen ay ñan dañu sonal waay Malikian nous dana wax ba munir, neex munir. mu man info matin quand je vois pas Malikian donc je je regarde pas du ma seetaan wallahi du ma leen quand je vois pas son Nata et Malik du parce que ce sont ces deux personnes que, j'aime écouter elles posent des questions pertinentes beaucoup de journalistes ne layam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 Ouba, Michui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pintade Ouba, Bol Ouba. kaay ma wax la fa 77 629 0000 00 fa Moi 77 633 57 57 Fou Michui Nehe Moui dibiteri Ouba Fou poulet neexee Moui dibiteri Ouba te nag kaay dibiteri Ouba Commandel, nous livrer le Fangané nga ne bu la tamit nga Tok qualité